mooy d'une semaine après donc mu nekkat ci jafe-jafe boo liiree donc maître Khoureyssi Ba bi nga xamante ne bokk na ci kenn ci avocat yi ñëw na en détail ci lim njot ne moom Khoureyssi Ba moom moo tax kon ñu daal di koy arrêté waat parce que japonais de nos révoquer li contre euh, contrôle judiciaire maanaam neenal non. si ci coûte te foog procureur maanaam procureur ci boobu moo du juge bi ñu daal di révoqué li nga xamante contrôle judiciaire bi am na loo ñu ngi koy reproché mon di Pape alain C'est vraiment dommage hein, parce que comme ni ñu koy waxee mbiram liberté à combat yi nga journaliste pendant un mois mené nañ ko pour sa libération ñu desiwaat dans cette situation là des situations déjà pour

pour jëli ko muy situation yoo xamante ne je pense que am na ci ñoo xamante ne jaroon ko vraiment di jëflanteeg parce que dañ dugal ci jafe-jafe yoo xamante après di nga wéet ci combat bi ñi nekk fii Sénégal parce que ñi am fit moom ñi ngi fii Sénégal quand di porte des combats politiques comme il se doit nekkoon bitim réew di saaga nit ñi di xas nit ñi wala aussi di tiiñal nit ñi parce que am na ñoo xamante aussi il faut ñu sóoraale nga xamante ñoom la ñuy ay it war que la dernière fois c'était avec le haut commandant la gendarmerie tey aussi bu fekkante ni le symbole lan parce que dañuy jiite ay ay takk der yoo xamante ni quand même ñoom ñoo yor kaaraange réew looy wax ci ñoom aussi je pense que dafa war a nekk loo xamante ni luñ vérifier la lu fir lu firnde la parce que soo demee ba supprimer poste rek ça veut dire que xëy na juum nga wala nangam parce que mm-hmm. journaliste moom bu dee li ngay wax am na wér nga bu jant bi di comme moom di tàkk wala di réew mi di tàkk tamit du dañ bu dee bu dee c'est information vérifiée mais bon na comme on dit la nuit porte conseil bék démb goudi dara xewna fi lo xamanteni ni quand même li ni ragal du am manam ñukay koy jàllale wàcc ay kasso parce que déjà état de santé état de santé ak mayu ko ko ak aussi comme soxnaam yi nga xamante aussi fo ñu leen di sóoraale ñu ngi jëm ci ay Noël ak yu mel et on espère que fofu tamit justice bi dana ci xawa am dum defal mm. euh, Alaaji Malick est-ce que euh, mën nañoo wax ni acharnement la wala yoon moom moo euh, moom mooy def liggéeyam waaw yoon mooy def liggéeyam parce que euh, buñ lay may liberté provisoire bu and ak li ñu tuddee liberté conditionnelle dafa nekk ñaari liberté yu bokkul mm. contrôle judiciaire ak liberté provisoire day dafa bokkul maanaam li nga xam ne mooy contrôle judiciaire buñ la ko defalee wala liberté conditionnelle moo di ni ñi ngi lay bàyyi waaye dafa am ay conditions ak lii ak lii ak lii dañ la koy tere mm. moo tax keroog bi ñuy def jàngat ci bi baye Pape Alé maa attention baye nañ ko mais man japp na ni li nekul sax liberté ndax liberté bu nga xamanteni dañ la nan fi nga yam ak bul wax li ak bul wax li lolou du du du liberté totale donc amulo sañ-sañu wax ci yenn yi lolou avant ñu lay bayyi dañ la koy spécifier dañ la koy notifier ba nga xam fan nga wara yam ak lan nga wara def ak lan nga warul def donc contrôle judiciaire à tout moment euh, ki nga xamné moy juge bi mën nako révoquer. manam mm-hmm. euh, bis bo waccé yoon wi nga xamné ne la la terre transel, mën nako révoquer jour bi mu génnee mom Pape live ak ki nga xamné modi Mola Morgan mm-hmm. il y a de cela cinq jours wax ji bari woon na lool ci ci bir ci bir euh, live bobu mais même mom ci bir wax ji sax mi ngi doon moytuwaale mm-hmm. di wax né suma ay avocat dañ ma ñaan li laay war suli que wax ci dossier bi parce que lolu le juge bi euh, euh, sant ci baye gi ma maintenant au-delà de ça ci bir live bi xeyna amna ci lu mu wax lu nga euh de powul ak charte yi ko tegal mhm. lolu motax ñu woowaat ko maintenant li ci dess moy meun nañ la woowaat remettre la à à l'ordre ni la attention baye nañ la mettre le sous contrôle judiciaire wala boog liberté conditionnelle ni la li ak li ak li bu ci wax mhm. kon bu ci waxati sinon caabi dina la féetewaat gannaaw mën na amit mu dem waa waaye daaj ko lu nekk mun na ci am. Mhm. mais l'un dans l'autre ak lu ci munti am la nga xam ne moom moo xewoon ba ñu bàyyi ko muy xeex bi nga xam ne waa CAP ñu ngi ko doon xeex. journalistes yep civiles, ci société civile au niveau international Reporters sans frontières dugg c'est toujours d'actualité donc ça veut dire que euh, xal comme

les avis sont partagés, c'est vrai, parce que, bon, euh, comme on dit, hein, la, liberté des uns s'arrête là où commence celle, des, autres. Donc, euh, c'est assez compliqué. Nous, Maintenant, reste à savoir, il y a une association journaliste nar cette nouvelle arrestation mhm. euh, sachant que bon raison yi ba léegi euh, mënaguñu wax euh, c'est ce mardi en tout cas bu ñu sukkandikoo ba léegi ci euh, ci avocat mi la a xam lan mooy raison yi donc à l'issue de cette de, audition bu bees buy nar am mhm. dina nar a xam lan moo tax ñu ñu ñu ñu ñu teyewaat ko donc ci ci source yi gis en tout cas live am ak Mola Morgan c'est vrai jot évoqué maintenant reste à savoir bonne partie exactement mon euh, euh, tamit Facebook partagé euh, juste le le lendemain de sa libération ou bien le, jour J même <clears throat> mu police nationale on est quand un DG de la police amène tous les membres de sa famille aux, aux États-Unis ngir euh, mettre à l'abri c'est parce que de faire ramener la fin sera tragique euh, il n'a pas nommé mais bon quand on parle de directeur général ñëpp xam directeur général de la de, la police euh, nationale donc Seydou Bokar Bokar plus plus précisément donc voilà pour l'instant lolo la comme comme comme information il nga a un moom mon ñu ñu mais toujours en est-il que je pense que tu la justice est là beau être euh, ce qu'elle est suñu ci suñu réew mais le le béaba dañ la koy dañ la koy xamal manam tay ku nek sous contrôle judiciaire mm. euh, dañ lay xamal au moins yane condition nga wara nga wara doxale pour ne pas que euh, yane di la ci di la ci baña a et puis on espère que sa défense aura aura les sera en tout cas joxe li nga xamanteni mom moy ay ay ay ay ay ay yi nga xamanteni dina tax ba retrouver euh, recouvrer la liberté voilà donc c'est en mm. tout cas tout le mal que qu'on lui souhaite vraiment ngir mu mm. euh, ngir parce que actuellement euh, au-delà du fait qu'on dise que la place d'un journaliste n'est pas en prison, il y a également le fait que période bi il y a toute personne douée de de raison passé au moins les fêtes de de fin d'année la dernière fois maa ngi def foofu un petit aperçu il li nga le chiffre zéro pour pour dire que plus aucun journaliste à la suite de sa liberté euh, n'est en prison malheureusement bon euh, l'avenir nous en dira davantage on saura si toujours on a ce, chiffre zéro là euh, ou bien est-ce que Denis n'a retourner à la case départ d'accord mm. merci beaucoup Marcel Iboui, pour terminer oui, c'est malheureux vraiment c'est malheureux ce qui s'est passé donc yaakaaroon nañ ne par exemple cette page nañ ko tourner et puis ku ne dellu ci liggéeyam rawatina pap Alé bi nga xamante ne moo nekkaat ci jafe-jafe yi wax nañ ko malik ni mu ko waxee léegi euh, gis nañ mobilisation bi nga xamante ne confrères yi am nañ ko bi mu nekkee ci euh, jafe-jafe yi ci kaso gi euh, xeex boobu dafay mel ni tey dafa neen parce que beneen processus la ñu enclenché tey stratégie bi

mu génnaat ci ni mu gën a gaawee sunu hmm. naat merci beaucoup euh, Ibou euh, léegi dañuy jàll ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde